alaajube alaajube Gambian Talents na tale alaajube mbindaan du jàmm dafay daan dooleem bu añ bi na jee ñu ne mbindaan bi la bu ndekki bi na jee ñu ne mbindaan bi la salaamaaleykum Gambia salaamaaleykum nuyu naa leen si Tambambalu la ñu am tey nag comme ni ma leen ko waxee Tambambalu bu nekk rek ak Tambambalu am tey nag président lañ ñëw seet si président bi nga xam ne nag jigéen yi yëpp musiciens yi mooy seeni président ki nga xam ne moo wax mindaan do jaam xarama em foofu parce que suma baat neexul kooku mooy Samba Suso ñu nekk fi nga xam ne nag mooy kóoloo li fii mooy këram tey Samba Suso la ñu seet si ku bëgg a xam kan mooy Samba Suso borom baat bu neex bi borom baati wurus bi ku bëgg a xam rek Samba Suso fan la jaar ak naka la mu def ba éega fu mu éega rek toppaleen ma si Tambambalu bi ma leeral yëpp bu leen daw bu añ bi najee ñu ne mbindaan bi la bu reer bi guddee ñu ne mbindaan bi la bu ndekki bi najee ñu ne mbindaan bi la ndey saanoo dafay daan dooleem salaamaaleykum Gambia salaamaaleykum comme nu ma leen ko waxee rek si njëlbeen tey nag dama ñëw seet si ab ndaanaan dañ koy wax rek lu góor mun na ci rek jigéen mun na ko te Gambie ñun den bari ñu am talent den bari ñoo xam ne macha allah tubaar fa kàlla rek lay wax. Samba Suso kenn la nag si gars yi dama koy wax rek jigéen bu fi saatati musique rek Samba moo la wanal yoon bi kon nag Samba Suso nuyu naa la. te Samba fay naa la yaa waata Mamba bi ñëpp macha allah naa la kontaan naa la sëñ bi fi tey. waaye Samba fi nga génnee rafet na de nooy na. nu maa def ma <laughs> maa def géer yu baax rek. MashaAllah. Bi mo ko tudé? Bi fa Samba laa ko tudé tamam Tamba Mbalu Chou. ah kon nak askan mi yéen a déggal Li leen na ba no ko sànni kon ma dina ànd ak ay tama. Mhm. ànd ak ay jali. Mhm. ñoo ngeen si sili. Inshallah, allah defal loolu. kon nak askan bi yeen yi nga xam yeen yéen a rek di leen wax ni ne Talents gëna ay seetaan comme ni ma koy wax sa su ne rek jënax li bari pax musde mëna wax ñew man mako wax kon nak ci fi rek ngeen ko gisee do lañ ko gisee fen tey nag si Tambambalu spécial Sambou Suso laa leen indil dama koy wax rek artistes yi bari neen waaye bokkuñu façon ki nga xam ne nag moom laa toogal tey ndaanaan la si biir ndaanaan ki nga xam ne moom laa toogal yéen ñi nga xam ne yéen a may seetaan di ngeen xam lu ma wax su ekkatee baat ba rek ku doon nelaw rek dina jóg su ekkatee baat bi ku xiifoo nag dina suur lan moo ko waral baat bu neex Sambou ñu bàyyi la rek ñu nuyu askan bi. news suma ñaari waajur gërëm leen sant leen allah ak sama waajur sama family sama fans sama xarit sama suma bahi. yu baax ah, ko xam ne ya yaa ngi seetaan Tawambalu show ak ci ni nga leen ni naa ñëpp sàmm mu ne bàyyiwul na ñëpp képp ko xam ne rek yaa di bëgg susu nuy na leen tay moy suma gam xam ngeen ne nak dama koy wax jigéen da mën sa boppam mën na boppam gis nga ne mu nii kontaan lool si moom di jaajëfal ki nga xam ne nag moom a mekop ah, di yaa Binta ah, Salon ah, noonu si laa dikku la jàmmal képp koo xam ne rek bëgg ngaa def lu baax nii rek ñëwal si moom suma maam Amina Mbaye yaa jaar fii ki nga xam ne nag mooy F Kuka F si naate moo jaar si jaaru yi di ko jaajëfal ñii ñoo def ak ñun ba mu baax saa ne ñu topp di def ak ñun yu baax a baax a baax sàmm ñu bàyyi la nga wax ñu kan ni sàmm sàmm soo mooy doon ñu jële bu suuf soo ak Aja Sadio Kuyaate waaw suma pa xoraat lu yàlla war may ndeysaan yal na suuf soo si kawam mm-hmm. di géwél bu respect di géwél boo xam ne macha allah ñu ndaw ko lool fonk ko torop ah, suma yaay tam muy Aja

di suusoo di jabaate bi ñëpp ñu ngi euh, faaxee ko Mandela wala suñu ancestor si jóge ñu risaay toog fi Gambia fii waaye ñu ngi toog talto talto Demba Kunda waaw loolu moom moom boori bas nekkee Gambi Saara mboori bi la nekkee talto waaw yooyu ñu ñu suñu euh, maam foofu lañ toog même seeti jigaay waaw waaye gis naa fa nag de Okay. am saane foofu benn yoon benn yoon. alright si ki nga xam ne mooy Samba Suso uh, nga nekk ab ndaanaan ñu bëgg xam rek Samba uh, fan nga jaar uh, maanaam sa sa jaar-jaar sa school fan nga fan nga demee school. waaw ak primary school after ma dem BSTS foofu laa def dem ma um, music waaye man à la ma dem school ak maanaam suuf de maa ngi wéy man daal dama teel a wéy daal macha allah dama teel a wéy ma nekkee xale bi maa wéy foog may dem naa suuf sax parce que su ma ko teewaan kooraa bi rek ma mën a toog si waaram di wéyantu maa ngi nekk xale ala yu si leen saa xopi ñoom dëgg ci leen. dëgg ci leen saa kii bébé rose. bébé rose balaa ñu ñuy toxu suñu kii pawoy tubaab ko woon foofu lañu nekkoon. Mm-hmm. léegi man suba su ma eewoo rek damay daw dem sa ñoom su ko defee lii laa ko di wéyal. Nadie era momina, kote guyarina. Nadie era momina, kote guyarina. Nadun dira momina, kele dira bari barina. ah <laughs> léegi ci leen yéen a déggal lii ah, ci leen mi nga xam ne ah, mooy borom Elegant magazine dégg ngeen li nga xam ne moom la ah, Samba Suso wax mm. mu ko daan wéyal seeni papa mu nekk wéy bu neex mm. xam naa ne Paa laay góor na loolu laay góor na ko suma ñëw ni ma ii suma jël moto ñu mu tudd ndeysaan mu nekkoon lu bari <laughs> ah Samba ngeen jamono <laughs> waaw nga wax léegi nii ne rek euh, léegi ci leen seen papa. moom nga daan mu yàlla naa yéen a am kër Banjul. waaw waaw ñun dañu am kër Banjul suma papa këram Banjul la nekk am na kër Banjul fa lañ dëkk fa la suma suñu famille fa lañ dëkk famille compound la waaw waaye fii tam Susookunda la waaw suma kër ba kala waaye man maa suma yaay moom ngi Banjul waaye léegi dama ñëw fii léegi dama ne suma benn rakk bi tamit Saalañ waaye su ma la ko woo man ko sant du ma wax turam nag waaw waaye nag moom macha allah dama fa kàllaa daal moom daal moom moo amee ñett moto beneen mu yaaxu même moto ñaar mu yaaxu même moto waat so moom moom macha allah. rakk ji boobu ma cere. ah rakk ji day moom macha allah man koo ñaanal daal si kaw ci kanam. macha allah ah. Raka sooy seetaan sa magang laa gërëm kon nag yow jër ngaa nekk Raka kon nag bu boobaa rek Samb ñu dugg si li nga xam ne mooy sa carrière dugg si li nga xam ne mooy sa musique lan moo la motivé ba nga dugg si musique. jaaxal bi man géwél la. man su ma juróom la. li ma mën a ay ñeneen ñeneenti ma. ah naa la limal parce que kii bamb gu maa di. kooku ñëwut benn. bamba Jali. benn Jali Sango. moo jur suma nga am ñom ñoom duntandig mhm. saabo mhm. waaw ñom aja majje baate ak ñoom iya. naka aja sambu ko ko ñu tuddee suñu maam wa am sa sarta ko ko suñu waari yaa am bi bu teer moy bu suñu yaa am eh, sayon daba ku yaate su ko kooku tam mooy jur suma suma maam bu man ngi wel laa nii la ta naa la special rek xam sa maama neex wa wa ngi wel laa de sha allah ñu mom ñu ñu mom dañ ko dañ ko nampa waaw. ci laay léegi la. ñu ci nag kontaan si ndax suñu maam yi liñ liggéey moom macha allah ñun moom saa nekk ñu gërëm leen sant leen ndax nga nekk studio wala nga nekk stage stage amul ak nga woy noonu daf day jaaxal tubaab bi nag yaa ngi gis yaa ngi boobu sàpp euh, ba léegi rek kon dafa ay waajur ñoo la inspire maanaam famille bi nga jógee. waaw waaw waaw di ko xam suma yaay dee wëy suma fa def suma ah, rakk yaay dañ dee wëy suma baaj bi dañ dee suma fa dafa tega mun kooraan nag loolu di kooraan nag këram kooraan nag kër gi mu dee nekk mm-hmm. ko yàlla yóbbu te eh, xaaral ko ñu kal ñam kii fi daaw su koy yang lagi mo magkagabi. Mashallah. Waaye nag suma ko moom pak ba Bassirou orang mau ngopo sih dong nggak dangaa gis ne bis julli paa bi suñ jóg gars yi suñ juma paa bi suñ jógee juma bi semua suma fas kër bi nga ñaar ñu ah pak Bassirou nekk si kanam suma patiyee koora bi tiga loolu dia na terus milliards ya allah waaw ne ko tunkara ma suudi moom ah ajama meen kalau di moom am bari ndax moo tax ma ko gis nag woy boo xam ne ah woy woy bu génne nag xam naa ne Jawarakunda macha allah nañ kontaan. nañ kontaan sama pom du ma ko mën a bàyyi te wuyu ma ko. Basoro du ma ko mën a bàyyi noonu te wuyu ma ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ah te Bambara Tambal te du ma ko mën te wuyu ma leen ñooñu nag fu ma wéyal dañuy yàggal suma xol. Mm-hmm. dañuy yàggal suma xol. trop trop macha allah waaw di ko ne yàlla. Alay bu ma ko fàtte moom tam suma xarit boobu géeram bu baax la ah kon nag yéen a ko dégg ah, ñu ne kuy fàtte démb baaxoo mu ne li nga xam ne nag ay papaam ñoo ko daan def ba ah, bu baax rek Samba Suso ah, a xam rek bi nga toogee nga ne yaa ngi wëy mbaa sa ay parents jaaxalul leen noonu. waaw jaaxal na leen because man mi maa door wëy dafa fekk time fii kenn dugut si musique surtout ak jàng bu ndaw nii moom kenn dugut ci soo da ngaa gisee su ma papa dañ ko daan di waaye yàlla suma mag góor tam maa ngi mën a fekk mu yorul suma papa Marie. kooku foofu la yaroon so mu mu ñew mu ngi nekkoon ENA fu suñu school bi mu ñew indi kora so ñun ñuy man ma man may player do moom ñuy wëntu ba non la suñu noonu lañ formé suñu baan bi ñu am ben guinéen bo xamné li lii la balafanis la ñu am ben benn Pamadou Ndiaye Pamadou Thiam Pamadou eh, kii eh, fay ay ngi pamuru fay mo mo do play jémbe bi ñu am ki euh jul de Camara mo do play rifi ñu am ñoom kutuboo xam nga am ay feccakat ñoo nekk saa di play si fatal si waaw soo suma pan xam nga maa ngi ànd ak suma mag. Mm. mu ko di liggéeyam si. kan mooy sama jooju. Basirou ñu dégg ne da nga bokk ak Jale Keba Suso. suma rakk la ñu bokk ak Bay moo toog man maa toog ki nekk ki moom fii. Mm. moo toog man suma kaw. Mm. moom mu toog si kaw kooku. ana mm-hmm. eh, jali keeɗa singe angleterre ma so suma ɗume bana mbamare bak angleterre Jalli Keba nekkoon koo xam ne daf daan uh, wéy ak ñi nga xam ne ñooy masla bi. wa mu daan def lu rafet a rafet. Mm-hmm. waaye déggatuñ ko. ah kay Jalli Keba mu ngi am baanaam bi léegi na album sax. gis naa album mu nekk second album bi mu fee. Mm-hmm. parce que aw naa ko ci wéy naa ci muy feer according to sources gars ñu dafa dawoon euh, bu mu àndee masla bi <laughs> ah, tey bu mu dawee dégg naa family Sunsukunda bi ñoo ko wax ne a ah, jali bul ñëw xam Gambia ak yooyu noonu moo tax mu toog rek kamu mooy xam nga ah, pour yooyu am daf dee jafe. Mm-hmm. ñoom ko fa téye ko fa waaye fi mu nekk nii bi mu ah nga Angleterre macha allah waaw. naka naka musique ak moom biir Angleterre. waaw mu ngi play bu baax sabar Ndiaye mu ngi festival di ko saa yu nekk mu ngi Facebook. noo dee film di ko gis muy play. dama dee kontaan bi ko suma xale la. ban musique nga njëkkee génne nga ne bii Samba Suso daal génne na ko. Mbindaandu Jaam. Mbindaandu Jaam. ak sa biir kër waaw wax ñu tuuti si Mbindaandu Jaam. ñu naan jàmm daal maa suma benn xarit bu fari la daaw bi mm-hmm. mu ngi nekkoon si library bi fii Gambia High School mm-hmm. su wàccaa ne daan ñëw suñu kër ñu dem seen Marien Sarr mm-hmm. yaa ngi gis Christian la waaye suma xarit la woon dañ daan ànd nag léegi mu ñëw suñu kër man ko man mindaan bi man benn woyu laa bëgg a mindaan bi ma ne ko mindaan bi jàmm ñun ñaar ñoo ko nekk ni bu fi nag su ma waxee mu ne ma lii su ma waxee lii mu ne ma lii noonu lañ ko defee mindaan bi jàmm taxaw so daal si yoon ngeen nekkoon rek. léegi nag demal di toog waxtaan yi rek ko waxtaan yi xale yi rek. toog mm-hmm. waxtaan rek bu ca fere nga ma fay maa ngi play hotel fekk maa ngi play so a mën ko mën daal dama xam nga dëggal maa ngi play traditional waaye dama bëgg a def tam introduce moom songs suma xel si mi naan la dem mi naan nañ de sonn dem ah ñoo xam su réeré ñu ne mi naan bi lu nekk te léegi seen doom yaa ko day jël xam nga mm-hmm. nii naa mi naa te fekk waaye nag bu ma wooyee loolu mais eh, am naa xarit mi naa mi bari. waaw dinañ wax si loolu <laughs> dinañ ñëw si loolu loolu am na solo bu baax a baax. Ah, Sambou ah, bi nga wooyee Mbindaan du jaam mu nekkoon woy boo xam ne woy bu hit la ah, ñun ñu ngi nekkoon xale yi ñu dañ daan dégg woy Mbindaan du jaam ak mm-hmm. yooyu noonu mu nekk loo xam ne lu am am solo la mm-hmm. ñu bëgg rek wéyal ñu tuuti si Mbindaan du jaam. su ndekki bi na jeex ñu ne la. bu añ bi najee ñu ne mbindaan bi la bu reer bi guddee ñu ne mbindaan bi la ndeysaan oh, dafay daan dooleen daan dooleen ay du jaan daan sa doole la ah, saamu nga am baat bu neex baat boo xam ne baati urus mm. ah, képp koo xam ne rek ah, dégg na sa baat dafay kontaan mm. Sambu bi nga wéyee mbindaan bi lan la musique boobu defaral waaw musique bi nag yóbbu na fu bari lekk naa ci lu bari tam parce sila do ang contraction makini gala di na idi ang gambir nak sila magina sila mga kam sila di ka fein tek tika diga time ko gini tam mashallah ni pa mag eh, ni pa ma now ni pa ma sopa sila ma sopa na bete wahin way sambo nañ ñew nañ ñew ci alum kalay bi mhm. euh parce eh, que ñu dé sonal min den bari won waaw euh den bari won ma tamit amul aussi ay enemy parce que bu nekké man tay dama am mindaan ma nge soxore mindaan bi yow nga ñew rek nañu mindaan du jam ah te man maa koy fay suma xaalis. dëgg la de am nga taal bu màggee dama lay toogal soo dama lay dem marché ma see benn jigéen jigéen bi ne maam yow kaay ma ñëw mu ne ma dëgg dëgg dëgg fuy loo ma mi naan. Mhm. mu ne ma yaa tax mi naan su ma mi naan su ma jotee moom rek woy bi la dee woy ah <laughs> léegi man man toog benn ngoon gis groupe ñu ñëw. Mm-hmm. ñu ne mooy woy bi woy xee sa woy bi daf ñu nee mm-hmm. yaa ngi tas sa ñeneen stop lañ sax dañu doon dañu soonal comme mm-hmm. ni ngi doon soonal sax léegi nee nañu dafa man ku ma soonal man fu may bi daa dee woy de woy bi daa woy de kal ko fa eh. nga <laughs> ma ne ko wàcc paay la ngeen ne orastan te ñoom da nga rek si liggéey bi la bokk si liggéey yaa so yow ma tamit amuloo ay jigéen yoo xam ne dañ la day face you know ñoo xam ne ñooy boos yi maanaam euh, yow nga romba ñu ne la yaa yaa xam naa ne you know yaa. waaye kenn moom ko sax Massa Ba waaye maa ko doon kastam rek waaw waaye ko comme laaj as laaj waaye nag ma ne eh dëgg dëgg fuy loo nga mi naa ni de tànga léegi su ma mi naa su ma wax moom mako waxe dara ko naxam salfa sega di woy minaan jam di ko di liggéey di woy di woy sàmm wax ñu rek mbaari yo seen kër dafa amoon ko am mindaan nga gis ni moo trité ya mindaan du nga nga merci ak yu noñu da ñun friends sañ dee ya nekk masha allah di diggaa ne rek dafa dafa suñ nekk suñ nekk judoo o suñ famille lan la bokk parce que ñoo suñ mindaan dañ dee juboo tox mm-hmm. anga léegi kat teexa teexa ay jàng nekk si gërëm mindaan mi fa léegi day du ñàkk waaye lii def tu soj externe parce que suñ yaay dañu dee discipline wu ñu hey kii liggéey kat la def ko nanga waaw so sa woy yep, yep, yep, yëpp yi nga woy yëpp ban mooy si sa best way, ban way nga di way nga hey be Monday, kill kil naa ko man woy yëpp laa dee fiil nag man lu ma woy def fiil waaye am na buy daax nag saa nen wax ah? am na bu laay daaxal soo koy woy daal la nga sa bopp traditional moom daf ma dee neex trop man may woy traditionnel sax daf ma dee neex trop yeah waaye tam am uh, like biikeel lee neex na ma lan mooy biikeel lee lan moo ko indi góor waaw góor yi rek laa doon so soo su ma tasee góor ñu ma naan yow doo bàyyi doo wax jigéen uh-huh, leen wax dara mm-hmm. ah biikeelu lee eh. ah biikeelu lee eh. la mbee malo ya ma shiri chéri kanam malon na loye. nitakedo lankwante keufiku mileleve ikana malando mulu ye shiri kana malum falu ye mooy comme ehm, buuri tey bu mm. ma rusoo suma kalami mbokkale nawle yooyu because am na kuñ ma mee man a bu ma ko ku yoolaal bu ma mm. rusoo daal something like that mm. waaw comme gàccal nit koo xam ne du dee sarama mooy koo xam ne lambe ma mooy koo xam ne koo xam ne dafa am kersa. kersa waaw. luy jël gàcce yaa ngi gis waaw. waaw lan moo indi ku nga woy woy boobu noonu. neex ma rek mbaa ñi ci a wane xanaa saabu dafa am disappointment moo tax mu woy ah, you know góor ñi ak yooyu. disappointment moom is part of life. waaw du ko sanga góor yow foog naa a ah pour sam biir rek ñoom ñoom ah affaire la góor yi daal ñu dañ hmm, bëggee dugg seen domaine tey duñ fi <laughs> sa biir kër la. waaw waaye yàgg na ok. Alright. Vegan Magical. binga wi wi uh, uh, uh société Mindandu Jam yang ko wi si wolof. Uh, te yow nga nekk ab bambara laan daanaka daan leen wax mm-hmm. you know ma soose yi gisuñu toon seen bopp si biir musique boobu non foog ma ko Gambie daal ñëpp benn lañ mm-hmm. te foog naa mun naa woy joolaa mun naa woy séeréer mun naa woy pël yow mii waaw mun naa mun naa ko woy ah. yee parce que musique dafa nekk loo xam ne dafa lii amul frontière nit ki daal loo xam ne mën koo wéy te xam li ngaa wax. Mm-hmm. li am important mooy li ngaa wéy nga xam miini bi xam nga par bul wéy laaka loo xam ne xamuloo looy wéy. Mm-hmm. xamal miini ngi li ngaa wax loolu moo important ci wéy lyrics bi. Mm-hmm. nga xam ko soo soo ma bindalee wéy bool tey mën naa koo wéy. waaw. voilà euh, Sambou yow di bindal sa woy yi nga dem na ko di bindal naka la fa dee demee. maa de bindal sama woy yi waaye naa lay laajte tam su ma yaay naa koy laaj su nekkee traditionnel sen family wax nga ba wax sa brother ne daf daan wëy ak ba ba léegi sa dafay wëy so yéen seen family kan ak kan ñuy wëy suñ famille man maa ngi wëy macha allah Basiru mu ngi play di wëy jël kii mu ngi play di wëy am nañ beneen brother tam Mali waaye kooku nag rina international artist la ko war a play bu mag la balakee moom suñu mag la benn famille moom man suma mag la kay waaye Rocky Basiru la ok so waaye benn famille bi la waaye da nga gis ne ñun ñëpp benn bàkkoor dem ba Kounda bi lañ jógee mm-hmm. suñu papa yeboo ya, kan la yaa bàyyi suñu waaw am nañ tam ñoom kii euh, kii mu ngi Paris suma suñu benn rakam mu ngi mm-hmm. mu mm-hmm. mm-hmm. nañ Jalimaare suma mag bu boobu moom tam ngi Mali dafaa defar Kora dafaa plaine Kora euh, suñu famille waaw. waaye yow rek yaa si comme woy mu la. voilà yaa si di au man daal maa nekk jigéen ngi mu ngi muy concentré am nañ la koy jigéen ñi mën a woy nag waaye defuñ ko. ma ne ñoom sant ak yàlla mën nañ wéy waaye dafuñ ko daal dafuñ ko seen xam nga rek dafuñ ko seen liggéey yooyu waaye moom tam bàtt mi baax na trop waaye daal am naa beneen si sa tam Sadio Ndik moom tam muy biir kaam waaye suñu yaay bokk ndey baay moom tam she's a good singer papa yaayam wuykat bu mag la yaayam su ma rakk yaay la moo daax suma yaay sa wuy waaye ndeysaan dafa gaañu teel a gaañu soo su ma rakk bu moom dooree wuy rek romañam yaa lay rot waaye baat bu baax la mun naa wuy tam waaye xam naa ñoom daal dafuñ ko seen soxla man daal maa ko def suma soxla daal man daal maa ko def suma carrière yaakaar sa carrière yi nga doon suñ ko waxoon def seen carrière yi doon dem macha allah. Sambou eh, li nga wax nekk na lu ama am solo kër bi ñu baree bari di yëngu si musique eh, toog ngeen ngeen xalaat yéen neen ngeen form seen own band eh, maanaam kii suy play li nga xam ne mooy kora bi. kële di wëy ak yooyu noonu. suñ kër. dafa tombé nag yooyu def nañ ko tam. waaw bëgg bëgg nañ musique parce que suñ suñ kër yu bari soo demee di nga fekk kora bu tege mm-hmm. waaye. def nga seen soxla def nga seen liggéey ñi fal seen liggéey daal mooy man la jël kebaat bi ba seen yali maam su ma doon ba bay waaw ñu ñoo ko def suñu liggéey ñu ñoo ko def suñu kaabe na Spain dem France dem naa Finland dem mhm. naa Oslo mhm. dem naa Tanzania. Mhm. waaw yëpp musical la yëpp. waaw musical la dem seeti famille. non musical musical musical di tukki. musical waaw. ñenn ñoo la di yóbbu. contrat lay nekk dama def nekk contrat festival am na kuréel ku ma doon jàppale tam Pa Ndiaye. am na ma doon jàppale ci ay contrat. moo naa ñu dëkk Sudan. ok ba léegi yaa ngi tukki ndax tukkee tuuti. non gëj naa tukki tuuti. gëj nga novembre laa gëj a last year novembre. septembre 2017. 2017 lan moo waral loolu. adama gino tan do es o oh, ma tok gitu, tam wala tam doomi adama tam dafa am tan bo xamne dafa melni yalla dafa de te bax na tesla ci jaamam dafa man dama gom yalla so luma gis dama de xamne yalla dama de dama gom yalla torop waaw dama de dama gom yalla because denen tam ndok bax na ci alina comme nga dem nga dem nga am ndok so paré nga ñaan yalla la juga defar ko defar ko lu mo am na solo parce que am du man rek la dal dal nañu bari ah Samb su ma la déggee rek comme ni ma koy wax Tambambalu la nay leer. non waaw nay leer eh, Samb da nga bëgg a wax ne maanaam cota la non du ma cota ma because aw ma believe yooyu aw ma ko nag. Mm-hmm. waaw man dama gëm ba sama suma yaay dafa jóg dafa dugal leen si man affaire gëm-gëm nit nii nii nii non non xam nga nit ñi nañ wax loolu. Mm-hmm. waaye loolu believe nit ñi la. Mm-hmm. waaye pour man daal dama jàpp ne yàlla la nag because yàlla moo dee yóbbu nit yàlla moo dee may nit yàlla moo dee xañ nit yàlla moo. lu am si jaam rek yàlla la soo lu la dal rek danga ko jël rek ne yàlla parce que mun ngaa baakaar mun ngaa gudd mbaalu diw mbaalu diw yaa ngi naa ah, mm-hmm. waaw soo affaire daal man dama jàpp ne yàlla la xam bi nga xam ne moom moo ma jàppale woon ba ma doon dem moom benn yàlla bi na ma jàppale waatu na la yàlla jàppale bu baax a baax a ah, ni ma koy waxee soo ñëwee si kër ndaanaan foog nga def ni ndaanaan yi ah, nga xam ne yéen a seetaan. programme bi say bo len ko digi rek xamal ni APS international ñoko dolel di approve service ah, ñi nga xamne nak ñom dañuy def ak askan bi ba mu ba APS international yéen a askan bi di def ak askan bi lu baax ba ah, sam yow mi nga xamne yaay am sa ay brothers nekkal ci biir bitim rew mm-hmm. ah, wax leen ne saay bu ta bëgg yoni xaaliss rek especially ñi nga xamne ñu ngi Angleterre. mété na yoni xaaliss APS. Gambia na mom, moom ñuy def lu rafet. waaw loolu la Gambia dañ wara jappalé wante. Eh, susa moram morom di jaay xorom dimbal ko si jaay xoromam bi am nga. Hmm. waaye bul har bi sa morom mi ngay jaay xorom nga bés boo toogee amuloo xaalis keroog nga dem leb ko. waaye bu fekkee waxtu jënd jot na nga dem jënd ko feneen. feneen nga ñun dañu mën na ñaaw na lool jikko la dafa doy waar tool. Gambia daal for now it's high time ñu gis suñu dia jéem a jàppale woon parce que ñun lañ am feeling ko koo indi. xam nga Gambia lu am rek Gambia la koo indi. xam nga waaye soo buggee naka wàll yaan sayu yu nekk saa yu nekk te par yooyu ñi nga ñi nga amee fulal loo leen ku nekk lu nga koo fulal mu hmm. ñàkk a fay la mu def dafaa kon Gambie yéen a déggal loolu yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan rek APS international ñooy jàppale ñoom nag si biir Gambie foo dem rek ñoo ngi fa. ñu ngi am service bi nga xam ne ñu ngi ko ooyee nduga yow mi nga xam ne yaa nekk bitim réew sa faama yi nekk biir Gambie bi bari na tappale yi bari na ñu ne la saaku maalum ngay jël 2000 fekk saaku maalum ngay jël 1000 su ko defee nag euh, APS ñu ne la déedéet bëggoon rek ñu naan soo na yéen ñi nekk Europe Europe bi métti na sedda bi di jóg di dawale awasi ñu yaaxa sa xaalis APS ñu ne déedéet ñun daal duñ ko nangu no bañ no stress kon nag APS ñoo fi nekkal ko askan bi saa su ne rek euh, jaay ji ja euh, dem leen ak EPS ñu jàppale leen yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a jënd building materials EPS dinañ defal loolu yéen ñi nga xam ne yéen a amee seen bopp bu leen nangu Samba Suso cash power bi di jeex <laughs> laajte leen ko Samba lan mooy seen nombre cash power rek mu jox la ko rek jokkoo ak EPS ñu slot ko mu dugg si biir hmm. loolu neex bi bugg a dee oh. soo laajtee Samba Suso ba tur nga use sa ID card rek a yónnee ko xaalis yéen ñi ngay seetaan def leen loolu EPS a fi nekk ku yéen saa bu ñu ñëw si beneen bi nga xam ne bu am am la. Mm-hmm. ñu ne kuy fàtte di ma baaxoo. Mm-hmm. am kenn koo xam ne mu si biir euh, dëkk bi woon di former président bi ni Yaya Jammeh. Euh, nekkoon euh, président yi Gambia. Mm-hmm. ñu bëggoon a xam rek Sambu sa relationship ak Jammeh. waaw parce que man Jammeh comme bëggoon la macha allah. Jammeh bu amee programme am daf dañ def tout pour ma nekk. te dama wéy dina ma sargal dina ma may. dina ma jàppale macha allah man koo ñaanal fi mu nekk noonu yal na ko yàlla jàppale. yaa ngi mm-hmm. parce que comme ni ko waxee fàtte démb ba baaxoo loo mm-hmm. parce que ñun géwél lañ. Mm-hmm. Fassamba yow nga taxawaloon ma fee na. am fa ma taxawal di ma defal. ah yow nga xëy Fassamba mu demee neneen ma fàtte la du la nee waaw moo tax nag nañ nuyu jaame ah. waaye nañ nuyu tam. suñu former président bi parce que man miinante wu ma moom bu baax xaw ma ko bu baax muy Sara da Jawara waaw waaye xam nga ba tey président la woon rek waaw moom tam nañ ko nuyu yal na ko fi yàlla yàggal ci wér yaay jam itam yal na ko yàlla may fan bu guddaa wér gu yaram ñuy barotam mi nga xam ne moo toog si toog bi tey ñu ngi koy parce que nga rek ñun ñëpp Gambien su nekk ku nekk sax ku nekk président Gambien président bi nga waaw so yal na def jaam rek si réew mi te tàmbaxol yi waaw amin yaa rabbi yéen a ko dégg Samba am am solo di ñaanal ah, képp koo xam ne rek ah, yaa ngi amee place Samba mu laa ñaanal mm. ah, Samba ñu ñëw rek comme na ko waxee nga ne Yaya mm. nekkoon président ni Gambia dañ daan gis bu mu am rek nga ne daf la daan oo Samba xaalis moo taxoon yaay dem si Yaya ndax la waaw nga ñun géwél lañ géwél njëriñ laa toppa de waaw ñun géwél lañ parce que ñun giir lañ am parce que man boobu moom bii ma sol nii sax géer a ma ko jox. Mhm. yaa ngi gis. Mhm. soo ñun suñ géer lañ am kon su fekkee ne kooku mu ngi toog mu la safoo ku la safoo na nga faale ko. Mhm. du noonu ak loolu la. waaw soo Sambu euh, wéyaloon nga Yaya Jammeh. waaw waaw wéy naa wéy yu bari sax laa ko wéy. wéy naa ko di fenn fenn wéy. bi ñaar. non du du du naa war a ma it naa ne naa ne fenta daal something. da ngay créer daal ko jaam. something wéyal du benn wéy nak? Ya ya nata, ya ya nata lea, anata le Gambia mu bebenta besunda. Koweana kulur. Hmm. Kalau koweana kotambi. Dindi masanata jame sura. Hmm. ta tarat saa mulu loolu nekk lu neex nekk loo xam ne xam naa ñi seetaan ñoom ko gën a xam saa bu regretuloo ya ya. yaaya pour ma regret duma ko woyal. waaw déedéet parce que dama euh, ko mën a regret because tam tam nga maa ngi toog fii maa ngi gërëm Basiru Jawara. Mhm. alaaji Basiru Jawara kooku su ma xaar ko kan su ma gërëm ba pare kañ. soo gisee da ah nga maa ngi toog fii moom laa fi gërëm dëgg. Mhm. ak euh, naka alaaji Malick Tambadou ak Basoro Daal yal na yàlla yërëm leen te xaaral leen si daaw si ak euh, alaaji Seydou Boutou Karam waaw yow ñett yu xam nga ñoom laa fi gërëm because dama leen gisoon. Mhm. ñoo suma papa ak ni mu mel suma papa Basiru Jawara macha allah tey ni mu mel suma papa suma papa bi mu nga ñoom Paa ah, Basiru ak njabootam li ñu fa de mhm. soo naa naatoo fàtte ko. Mhm. lool la nag te am na ay géer géer géer géer tam ñu nekk si biti ñoo xam ne tam ba ëllëg ñoo ñoo ñooñu la sa géer yi démbale loolu la mën a fàtte comme tey ñoo la. Mhm. yaa ngi gis soo tey tam ñi nga am nga ànd ah, ak ñoom ñëpp ngeen def rek àdduna gi neex. sama susu mu ne eh, àdduna day neex bu ñuy fàtte démba kon nag moom du fàtte démba. waaw sàmm loolu nekk lu am am solo. waaw parce que góor nit ki war a nekk góor. Mhm. waaw bu man ko def man géwél laa du ma saaga du ma xas njiitu réew du saaga njiitu réew du ma tooñ njiitu réew wax dëgg mhm. waaw teraanga day ak naa respectam mhm. waaw parce que njiitu réew njiitu réew la. ñun loolu lañ fekk suñu euh, loolu ñun loolu lañ xam. géwél loolu laa am. Mhm. géwél du saagal njiitu réew géwél du xas njiitu réew njiitu réew njiitu réew la yaa ngi dégg ñun géwél lañ traditionnel géwél lañ xam nga ñun nekkuñu artiste géwél lañ yaa ngi dégg comme ni ma koy géwél lañ ñun kooraa original lañ te sool yoo dañ koo wuy yaa ngi dégg waaw ah, soo dangaa gis ñun géer bu ñu nekkal nag ñu nekkal macha allah waaye tam xam nga nit ki tam dañ koo neex mu neex la mhm. yaa ngi gis bu nga yëg a koy fekk yaa ngi gis mhm. waaw comme niñ mela meloon na yaay jàmme xëy na tam ñu mën koo mel xëy na in the, in the future, maybe we can say Baroto. Ang Baroto, for example, tay, maneka sa program Baroto. For mo ko. Uy, ano ba ron yun For mo ko. Nakulang ko kumpos. Ah, ako ah, kumpos. Ah, ah, <laughs> eh, kung nang mga na di galina mo ko, tamba na nyo yung lera lépp doo xam ne rek leerul ba tey askan bi di si am ay laame-laame ñun ñii dinañ leen ko leeralal yaa Binta Mané Diop moo jaar si li nga xam ne nag mooy makeup bi ah, kon nag di ko am Amina May Sarr yaa jaar fii mu neex ma lool soo seet seen naanaan da nga war a def ni naanaan kon nag tey ma ne foog ma def ne saamu. ñu ma ko li ma bëgg mooy xam nga bi tam dama si bëgg a fi tuuti xam waaw xam nga bëgguma trop si politique bi. ñu ko doon sóobu trop di di dinañ ñëw si loolu. Mm. Euh, Sambu euh, sa Thompson clairon na bu Yaya génne woon euh, Gambia maanaam ñu ne Yaya léegi nekkatul président sa Thompson clairon na ku nga ne ok keneen a ngi ñëw maa nit yi duñ ma gisee as ne ah Samba Suso daal moo fa ko yoon Yaya te Yaya def na fi ñu ñaaw nga rek dégg nañ ñoo xam ne ñu ne Yaya ko def na sa Thompson clairon na woon. waaw nga man loolu boobu part boobu man doo si mën a wax parce que part boobu loo xam loo fekkee wala doo mun a. Mhm. Mm-hmm. te part man ma nekkal nit koo xam ne ma dee li fi nii dee comme doo ñëw nga ma lii la ma ne la waaw. Mhm. xam nga nit ki tam bul seede loo xam ne tam óoru la yaa mhm. man géwél laa woon géwél laa rek woykat laa. artiste laa yaa ngi gis. waaw rek moo doon laa doon di play nii nii. yaa ngi understand te wax ne yàlla jënd second taw bu jotee nañ ma jox moto jox ma effectivement am na suma bant yaa ngi gis loolu respect la oo yaa ngi dégg même ngénteem su ko amee seetal rek maa jox carte suñu ba suñu kër boo xam ne daf la jëloon rek bu parce que soo foo loolu nekkul su ma defante woon kenn su ma loxo ci kaw. Hmm. kii PAC yom daj su ma loxo ca kaw. loolu mau sa tax su ma defante ñoom respect waaw waaye nit rek mën am lu gis rek ah Samb yow soo si ab kepada kita ñu ne Samb la si garaam bu ba ñu kontaan si malinière nggak toj fa waaw mën nga maa laaj waaye nit mën nga maa laaj waaye respect ya, as brothers sisters sam aunties oncles you know loolu moo nekkoon su ma doon su ma diggante ñëpp waaw géwél géer daal moo euh, bu yaaya waroon a génn si dëkk bi hmm. gis nañ ñu bëree bari ñu wëyal ko hmm. euh, ki nga xam ne mooy euh, naka la pa boobu hmm. wëyaloon na ko ne jaame wàccal ak yooyu noonu artistes yu bëri bëri you know ñoom ki la is ñeneen ak ñeneen yëpp wëyal yaaya ne mu wàcca ba tey it sax ñu def vidéo di wane seen sadness ne yaaya na wàcca ñoo xam ne bëggoon nañ sax yaaya waaye Samba euh, moment boobu noonu kenn déggu la. waaw man kenn du ma dégg kenn du ma dégg. lu tax non non kenn du ma dégg. lu tax lu ma dégg parce que kenn du ma dégg du ma doomu du ma la du mën a wax waaw doo ma du ma la def doo ma ma nga yónnee ma la John Sam John hmm. ak ñooñu suñu xalaat duñu mel ne xëy na ñoom loolu lañu mel loolu lañu foog na moo gën def ko soo seen life la ñoom loolu lañu fiir hmm. man ma ko hmm. soo ku nekk asa fiir so ñoom liñ fil nañ des na dama fil loolu laa dafa toog noppi bu ko sam naa ne man noppi moo ma war xam nga tax noppi war ma lu tax man noppi war ma man moo mën a saaga yaay jaane wax dëggaat ne yàlla yaay jaane non non non non non doo ko mën a saaga su ma ko yaay jaane jërëjëf man saaga du ma ko mën a saaga parce que man defoon ma lu tax ma koo saaga so du ma ko saaga comme ni ma la ko waxee rek kilifa la kilifa lañ saa daal kër ba joor kilifa la man doo ma sa saaga doo ma sa toog nga digal saamu saaga la presque baro mi ñëw nii ak keneen ki sa teew keneen ki sa teew du ma saaga kenn du ma saaga parce que man géwél la ñu xamee. Mhm. yaa ngi man mhm. eh, yarewu na si saaga nag man def naa suma aar ba tey macha allah maa ngi am nii allah dafa fakkaalaat kenn moo ne sàmm laa doon attan si yoon bi. Mhm. yara teggin leen xam ak euh, géwél kon nag suñu mbokki géwél yi maa la naan nuyu man nuyu tam euh, mitam te nga président Adama Barrow depuis ba mu starté liggéey déedéet wax dëgg yàlla am te kii naka xam nga nit ñi man yaa jamee mhm. nekkul na man yaa jamee fa toog ma dem bindalee rek gis ko oo ma ko oo te te kenn tam ngoon man maa téye loo sàmm ko si yaa jamee mhm. yaa jamee programme yi ma seet nekk na président yàggatul man dama ne ma play dara dina la play soo ma nee play dara dina loolu maay suur ko suur si ñu doon def dara ma dem di fa play léegi nu ñu play noonu yaa jaame du gas bi mu dugasee fekk ma maa ngi wëy ñu ne ma bàyyi ñu def national anthem li ñu defee national anthem ba pare man ma léegi naka ma lifin ma continue suma wëy wëy ko comme li ma la dama ko gisoon tey ñu tasee programme dama ko wéykat waaw noonu la tasee yaay jëm ma noonu laa ko mujjee ma wéy ko bi ma ko wéyee yaay jëm dafa yónnee protocole si ñuy jël sama backstage yow ba nga si high table bi nuyuwantee man yaa ngi dégg mhm. bi mu nuyuwantee man su ne man ah man de man musuma foog na sax Gambie am na wéykat bu mel nii mhm. ma ne ko waaw ma ne ko man tam maa ngi fi de parce que hôtel si laa dee play eh mu na depuis loolu nag si la star yaa jëm su amee programme yu ma invite may def ndax dafa ndax euh, dama war a yaa jëm invite programme ah, a def waaw tey bala de loolu moom dina leer waaw nay leer nañ du ma mën a saaga benn kilifa loolu du ma ko def benn kilifa du ma ko saaga man su ma gisee saaga yi su gisee du dee click du ma like du ma dama because man du ma kuy saaga kenn. man du ma ko def man waaw ma keneen de waaye man du ma ko def kilifa. Samba Soso mi ne euh, képp koo xam ne rek njiiti réew nga moom Sambo ekkati na loxoom ne la borom réew nuyu naa la kàddu yi yaay borom moom daal moom sa gannaaw kon nag Sambo euh, tey jii euh, su ma la doon laaj benn question dinaa la ne président Barrow tey su la ooyoon ne la Sambo woyal ma. da ko koo na do ko xalaataat parce que ñi na dina ne ki fan la far. dede mhm. do affaire far. do affaire far because eh, affaire la la kilifa la. Mhm. tay suma ma na ma sàmm vraiment suñ ma ooyoon eh, comme ni ma don ooyee dama am day am pour galadina tay tey dañ bëggoon nga ñëw play. Mhm. waaye nag <laughs> dama leen a waaw ni ngeen maa suma do ko suma Ba ñu play ñu play ñu waté dem. ñaata nga am si yaaya jame depuis bi nga staté bari na dem ñu ma ko compté nag. am nga si kër. ah. ah. Ah, xaw ma de waaye daal wax ñu rek saa ma ne bàyyi leer nay leer nay leer nay leer saa mu nay leer nay leer nay leer tey man maa laa wëyal am naa ci rek waaye du am waaye am naa ci rek lekk mhm. naa ci moom waaw lekk na yàlla wax dëggaane yàlla lekka moom mhm. am naa ci wax dëggaane yàlla mais dama de yaay yaay moom wax dëggaane yàlla gars yi baa dina ne nga indi xaalis bi ñu nangu ko nangu <laughs> man dama place moom dama baat laa jël ba taxaw woyu may ma ni nañu nangu moo ko liggéey. am na ban nga wax ma play may ma ah kon nag moom macha kan. allah boo déedéet waaye loolu sax ñoom duñ ko def sax. non non non duñ ko def duñ ko def. kon nag yéen a ko dégg mu ne baatam la amee dafa amee baatam nag di wéy. amee suma baat amee suma ba baat amee suma maay. ku ma over ah ah bukman ga sudah main politik bukman ga daw politik ga politik bidara ya, ya, politik. taga banjay atat la yaay gis pasangal ka ma politik Kami mi maraga ko sagan tendaye sagan tebaye kaste fin yung, politik jaro ya, politik jaro yo politik kay am nga sakarsa nga buga su jote dama nga dem sana jaru lo jaru he jaru sagante jaru enemy jaru problem jaru tribalism jaru dara politik dal moy kama ku nekk ak ki nga yow ko kooku ba su jotee dama sànni ko man foog naa parce que tubaab yi koy dund du noonu. waaye ñun loolu la ñu suñu def loolu. wala sax ñun africain mënuñoo ubbi suñu bët yéem a civilisé tuuti ah man def ma day jaar su ma gisee ni ngi saagante ndey weer di xuloo ngir politique def ma day jaar de. ma day understand waaw. parce balaa balaa yaay jaamee di ñëw. fekk maa ngi nekk xale sax parce que man personne di war tombé fekk na sànni satuma sànni maa ngi dégg. waaye nag kii nag ak tuwaat balaa kii di yóbbu eh, fekk politique daal man li ma danga mën politique daal loolaa la ma. yaa ngi dégg waaye am nga yàlla moom instant bi fam laa ñëw jaarale sax ba nga dugg si doo day am. Mm-hmm. waaw waaye nag bi ma gisante yaa ñëw si gàllu diina boobu leen ba mu door di ma invite ba mu door di ma bindale te dama invite si programme si. loolu laa doon dugg si programme si man dama nga ma nekkal ni ngi fi understand xanaa ku la nekkal si kër gi nga nekkal ko si naaj bi parce que bu fekkee kii dafa dee dangaa toog rek. léegi rek ndeysaan mu oo la pléuro mu may leen xaalis mm. yaa ngi soo kooku tam bu fekkee ne tey mu ngay dem toog dem ci naaj bi waaw war na ko toog loolu diggaa nañ yàlla nag du noonu loolu moo doon waral ñuy dem di ko toppal waaye macha allah sant yàlla ñu ñaan jàmm rek si dëkk bi man daal jàmm ak salaam yal nañu yàlla may jàmm ak salaam ci Gambie bi ak yi ko wóor sàmm nawuloo tooyee yaay jaam bi ambiance. waaw ambiance la daan nekk ak xaree beeg ak yooyu. ambiance la daan nekk. dama def dafay dal sax. Alice dañu daan nekkatu Géera. waxtaanee fii tooñante fii Alice. waaw Alice bële daan dem. soo def daan dem bu fàttali ah ñu bëree daan dem de. comme ngeen ak ngeen ñu bëree daan dem. nga ne la bañ jaay attaque la nga ne sàmm léegi boo. teguloo kenn di. ooy am naa ñu bëree daan dem. comme ngeen ak ngeen. am na ñoo xam ne tey lu yàlla xam loolu mooy loolu. Mhm. jarul ko waaye xam nga rek ñun ñun ñu daan dem xamante ne. sàmm lay daw. ak ñu bàyyi daan dem. mais ndaw mi ne bëgg problème non non man de man ma gis nii. Hmm. jaam la sa kudu. jaam la sama kudu gi rek dama ko taal. gis nga nu mu ko defee xam nga lu ma taal. Ah. zaay laa sa sa bi jàkk. kii ah. sama maay bu wëy. Ah. man laa taal de man nga lu problème kese. ay wéyal nga tuuti lu ma ko. laal ñu beneen. Hmm, ma laal beneen. waaw. parce euh, que waaye bi yoon traditionnel laa laaj. waaw acca. Iyela ina hinaveda lilela. Ala ina hinaveda lilela fatu. Ninke se komaru ke se kadibeye, olai fatu sama kadibeye. Jeke se kodugu ya sirai kadibeye, olai fatu sama kadibeye. Alu yenna lilele fe. yo me vida, a silile de fe. <laughs> Neta también no soy así la diana que con y ti sigui fa filancon, alubidi diana mama y disi titati, alubidi buena mama y disi mais ça va pas. mais ça va pas kon nag lii nee na benn bi yéen a ko dégg dama koy wax rek baati dañu bari waay bokkun. dëgg la Samba baat bi fu mu jógee. ba natural natural gift la rek. waaw mm-hmm. natural gift dañu koy dañu judd rek. ah macha allah door bi wuñu. kan fi noonu laa ko dee waaye. Mm-hmm. te parce que man dama dama dama bëgg a wuy waaw dama ba pare man li ma ñaax tam wuykat yi xam nga ma. washma cycle benn cycle tuuti parce que ñun tam ñu ngi nii am na ñaar yi tam ñuy jóg. ñu déglu xale yi déglu leen déglu man déglu leen déglu leen. bu ma doolee woy waaye Salif Keita. Mhm. dama man kii ma nekk si néeg bi takka suma ndigal. Mhm. di yuuxu fa ma yuuxu. yaa mhm. ngi gis mu woy ma woy ko. ma jege suma pare lay eh. wala soo mu gën a sibi de. wala képp génn ànd Salif amee koy takka njaar. ఇవే వస్తాయి మాషా అల్లా ఇంగ్లీష్ బబ్బిలో ونقول من ديدك تكتي سر من ديدك وانا تمي نيانا لوس محبي كاسماري جبات مغاني ماري داي سان كوبا انت سانس نك كوبا با با مد والله سيمان اسفر مد والله الله ما الله جان سو ما الله الله ما عليه ما ابا كاسماري جبات مغاني ما لو كان بوكي الله كالله رسول سمي ko barlas casamance di baax may ko ñam bu baax baax yam su sëri naka nga gisee gambien musique music gambien musique moom am na solo parce que nekk nit ñaa ngi artiste yaa ngi liggéey lu am solo parce ngi bëggee maa ngi dé maa ngi déglu allah lirik yi baax nih sih. gaa yi ada naa daal am fi mu toll nii ku wéy na dina kontaan wóyante wu ñu ngi wóy macha allah macha allah macha allah booy si tam waaw ñu ñaan rek yal na yëpp dem kanam yal na ñun yëpp fi ñu ko eggal yal nañu ko eggal waaw aar bi daal fépp fu ñu ko séntu daal yal nañu ko ko yàlla yal nañu ko yàlla woon. amiin yaa rabbi daa nga tam eggal sa highest place yi nga xam ne am ci musique ci showbiz bi mm-hmm. am na solo waaw. loolu foog ne mooy euh, problème yi Gambian music bi parce que Gambian music am nañ fi ay ndaanaan yu bari. Mm-hmm. ba dafa mel ne musique bi dafa taxaw benn place. musique rek Gambia daal. dafa war fii waaye nag man foog na support bi tam la. Mhm. def support moo la ñu amut. comme naka soo waxee support comme naka. support amut bi ko sanga fii luy problème bi man wax dëgg yàlla su ma lonc ma defoon xam na nit ñi ngi ñëw ne waaw waaye um, léegi da ngay organise programme géej naa organise programme waaye maa ngi wàcc pour organise suma programme parce que comme back show laa ma def. Mhm. back concert laa ma def incha ko plan dina ñëw. li ma bëgg a wax mooy xam nga Gambia support bi lañ amoon because su fekkee Gambia dañ war a try def ñoom show yi ak ak seen programme su nit fentee bëgg si studio wëy dafa métti de mm-hmm. nga dugg si studio wëy soo war a def concert di nga rehearse di nga fay artiste seen ah di nga fay artiste di fay hall di nga fay studio di nga fay li fi naka ah, musical set di nga fay yaa yëpp nga ñëw organise this pour yëpp advertisement nga ñu oote pour Gambien si pour ñu génn supporté mu ba nekk problème loolu affaire la. Mm-hmm. ah bu nit ki jëlee tànkaam ñu bi sa kër yoo la kaar boo mënta dem sax ekkati sa doom wala sa sista boo xam ne ku ko am ko koo jot ne ko dama egg ma fële est-ce que moo gën ah waaye Gambie daal su paree su desee yow si nekk seen bi dina la yem. yéen yéen ko gën keroog naa xam ni ku dem ku dem musique nekkul dafa ji ne soo musique bi ñuy tëgga fële dangay seen dëkk yi soo tëgga lekkat sa dañ laa soxla ah looy tëgga lu sooy tëgga bi naka tukusu nga la te soo ko tëgga ñu soxla waaw waaye du sa gàmbe du soxla sa naalis dégg naa si sa wax nga ne musique nekkul yi fi mi ah dama lu ma lu ma wax lu ma wax dama jow mi dama waaru de dama am ne li ñoo wax ne Gambien ak si mënuñ def nañ nii def nañ naan def nañ naan loolu booy booy kama kama because yow xam nga ni yow façon musique boo soxla Gambie yaa ngi ko am dansol bi gars yi def wonas yaa ngi dégg reggae bi nga ñoo ci euh, hip hop bi ñëw si rap bi ñoo ci mandeng bi ñoo ci li mbalax bi salsa hein ah? nga ñoo ci jazz ñoo ci blues yëpp gam ngeen ci kaw hein ah? nga ñoo ci euh, naka sukus yëpp Gambie yaa Gambie yaa ko def léegi ñoo gën lañ ba nag waaye ñoom dañ plus fa dal wala ya dal gam ngeen dal nañ wàllu yar man loolu moom jaaxal ma seen man maag sa man maa ngi wuy am na ñaar yoo xam ne xamuñu maa si ay gis daan naa keneen beneen at sa beneen at sa dañ di am ay gis man daa xaal waaru waaye daal yàlla baax na xanaa comme naan man waaru naa man waaru naa man waaru naa man de joomi naa gambe leen tan théâtre kat yaa ngi fi mun a théâtre du sosee du olof du xol bi ah du joolaa bi du sorobale du benn xeet yëpp ñu fi théâtre macha allah tabarakalla mun nañ ko waaye lu tax gàmmee ñu supposé boobu boobu tëj ah gàmmeen sax su ñu leb sa yoo leb si gàmmeen su ko si keneen bu ko wàccee ba benn dëkk mm-hmm. ah loolu dafa doy waar léegi kañ la gàmmee dem kañ la Gambie di dem ñoom Pa Ousmane ak Iva ah. Samine lu tax Gambie du dem ah. kon nag Gambian Talents sax ngeen naa amee yooyu ah, di leen fàttali ne rek yéen a si Gambian Talents promotion ana see seen xarit seen doom ki nga xam ne nag moo ne janax day bari pax muus day mën a wax ñeew xam ngeen ne nag janax moom pax boo ko gis rek foofu la moo séntu waaye tamit muus nag moom ñeew rek lay wax kon nag mbokk yi di leen wax ne APS international di leen jaajëfal bu baax baax a baax a baax képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg a dina cash power ku sa famille fii si biir Gambia yéen ñu nekk Europe yéen a ma ko gën a xam jokkoo leen ak ñi nga xam ne nag ñooy APS soo leen bëggee dina building materials ñu leen naa njuut njaaj di leen ne tey nii oo ëllëg ne leen APS dina leen ko defal soo leen bëggee nduga lu demee ni ki saaku maalo bi doo ngi diwlin lu ñoom pompiteer ak yeneen ak yeneen even sax euh, li nga xam ne mooy ndawal sax ABS international dina la ko defar yóbbu la ko nag ba sa bunti kër kenn du la ne dafa seer oo dafa yomba oo nii la oo nii la la su ko defee ñu laa ñu jaay ABS international nag ñu ne nay leer daal ñoo fay deliver deliver bu amul fenn euh, kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan su ma gën mooy Sambou Suso euh, Sambou ba léegi rek ñu ñëw li nga xam ne mooy gis nag ñeneen yu bari ñoo ko wax bu leen ma attaqué Lamin euh, promoters yi ñu ne promoters si nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi dañuy xaar ba dixième ba di jot ñu indil ñu ab yeneen musician euh, ida from yeneen dëkka euh, you know fekk Samboo ngi organise programme am ñëpp bëggoon see dem waaye ñëw na rek nag because beneen dëkka la jógee rek ñoom dañ leen di indil problème yéen musician yi Gambien si waaw Gambien yi war a am fula nag waaye promoters yi tamit ay Gambien lañ ah waaw waaw xam nga ah, suñu gis loolu mën nañu ko gis Gambien yi nga ñoo war a fay te dem ñoo am fayda parce que du ma bàyyi suma Gambien boo na struggle wax diggaan yàlla struggle kooku la ko amee xamuloo dafa métti musique dafa métti ah war a oote ñu def ko keneen kooku ñu taxaw ñu jël ñëpp dañu yóbbu loolu suma oom sister nekkee nii ok sa sister boobu bokkam sax nañ ko jàpp kooku war di jaay lii yow nga romb ko fa dem jëlee si keneen assistant moom moo fi same la lu same la Gambien ne amul lu ñu defut Gambien artiste amul lu ñu defut après man bala maa dee rek duñ la célébrer ba nga dee mm-hmm. ah, lu am am solo mi ne du lay célébrer ba nga dee <laughs> ah, kon nag euh, loolu xew suñu suñu dëkk moom moo ko wax Samba Suso nga nekk euh, female euh, président bi ci li nga xam ne mooy musiciens yi yëpp yaa leen yaay waaw yaay seen euh, président national female um, artistes yi yaay seen i président euh, Samba loolu naka la ñëwee waaw loolu am na nag 2008 euh, hmm. around non around 2003 foo yooyu la loolu am fekk xale yu bari ñu si association bi <laughs> nañu nga dem school yaa ngi soo bu ñu starté ñu seetlu man la maa jigéen Faya jëliñaama jëliñaa leen ndeysaan ak Sey Mbay jëliñaama ak Sey Mbay ñoom ñoom ji dañ gaañu yal na yàlla xaare aljana firdaws ak Ami Chine ak ñu la woon ñoom su ñaari brodas ñu fa bokk Mohamed Soumaré ak Khalilou Bandiam Khalilou Ka moom lañ demee registre comme men's bureau ñu am organisation boo xam ne jigéen ñëpp organisation si lañ nekk ñu dem am on a women's bureau so nekk foofu noonu lañ fa nekkee ñoom tam suñu ay programme ñu génn a dem programme su am ñu génn dem since 2003 ba léegi xanaa yow rek a war a nekk président non du loolu dafa fekk ne xëy na a ah nga ay artiste bu njaboot leen usiwut xëy na boo ma cëy ñi man tey nga def fa xale xale yi si gannaaw duñ ko déggal mhm. yaa ngi déggal <laughs> duñ ko déggal yaa ngi so pour maintenir affaire mu dem foog mu am fa nekk rek yaa ngi dégg te su ma ko bëggee xaar ko sax ñoom duñ nangu xam nga kenn du nangu kenn du ko kenn du ko leen nangu. Mm-hmm. waaye xam naa ne dinañ comme am na ñu ne dafa tas de. Mm-hmm. xëy na ñoo ootee xam nga bi ceebis bi amee ba tey xam nga fu nekkaan sa une affaire waaye dañ oote waaye tasut am nañu foog ne dafa tas waaye tasut. waaye ay wax ñu ngi woon na si. wax ñu ngi woon parce que ñu xaalis. Mm-hmm. xaalis boobu génn nañ si def nañ si clip def nañ si feeyoon nañ si kébaatilu feeyoon nañ si xool fële ak at bi penc mi xool. feewoon nañ fi pour workshop ku leen mayoon xaalis Zeynab moo ñu mayoon xool na fi ci taw bi. yaay jaame waaw ñu parce que ñu lifin def vidéo kër bi def yeneen yeneen war a bi afta bi it passe yi dañ ñëw fii am nañu wax yow ma ne leen lu mën a am programme lañu wax ne loolu la ñu war a def dañu war a tasee wax ñu def programme suñu defee programme association bi continué association bi néew ku tas because ay xale artiste am fi yaa ngi dégg dañ boo association bu continué Gambie nañ bàyyi lu ñëw rek ñu ñu fi fi zone bi comme yaa jamee da nga cee gis am cee na association bi tas. war na ñu ñu naan génne xaalis yu séeréer ñi may na ñu war a génne seen génne xaalis bu ndaw boobu leen dañoo séeréer. ñaata la doon seen naaw la fifty la ñu mayoon. Mm-hmm. si loolu lañ def suñu eh, paiement suñu def yooyu ñun yëpp. Mm-hmm. yaa ngi dégg defaree suñ ko war a génne séeréer ko am balaa ñu eh, def programme. loolu moo ñëw indi indi nañ ko. Mhm. ñu mën a record something xam na record nañu song léegi ñu mën a record boole five five wala three three wala two two ñu bokk benn song. Mhm. loolu moo loolu moo nekkoon plan bi kaal kaal tukki nag yaa ngi dégg waaye nekkul ak station bi dafa ñoom ñooy wax ne am na ñu nekk si yaa am na ñoo xam nekk si biir affaire waaye duñu dégg ba mu dem. Mhm. waaw xam nga fu nekk rek am na am nañu garaaw dafa ñu lay nekk soo xam ñu ne nekk si biir dara waaye duñu dégg ba mu waaye man daal man artistes yi xam naa ne respect nañ ma respect boo xam ne macha allah su ma paree su ma leen ko ooyee sax nañ ma wuyu si yaa ngi dégg waaye dafa fekk ne xam nga ñun tam ñun si ay yeneen affaire waaye léegi suñu paree ñun tam nañ ko woon oo a nekk lu tas national female artist station lu warut a tas dégg national female artist station national lu warut a tas ay jigéen ñeneen moom fu mu nekk ay jigéen fa nekk ay problème amuñ déedéet déedéet wax dëgg yàlla dañ daa mënti problème. ah waay waay Sambu comme laaj Zina may na leen xaalis. Mm-hmm. ñii a ngi wax lii. ñii waay loolu sax loolu non xam nga dañ demoon ba nga xam dañ temps bi ci demee gars yi dañ desperate ndax ay xale lañ xamuñu ñoo ko sax xam nga ñoo ne léegi fi mu nekk yaay jaame dem na léegi nañu seetu ah lan nañu seetu man la station bu ñëw pour taxaw ñu seetu. anam anam ca la nekk. ah trésor bi Faya mooy trésor. Faya si këram la ko de nee na la gën a. déedéet Faya mooy trésor bi waaw Faya Ngom fay mooy trésor bi yaa ngi dégg waaye nekkul ne ay millions moo fa tege de nay leer. Mhm. ñoo xam ne nay leer. <laughs> nay leer ne ay millions moo fa nekk yaa ngi dégg loolu na ne dañ ko wax bu set ñoom ñoo xam loolu sax xam ne li fa nekk moom macha allah dafa fa dara. loolu ngeen jël ko ngeen def programme yokkande ko sax parce que loolu ñu yokkande ko. Mhm. def parce que soo seetee picc yi loo ko war a fekk yoo xam nga loolu. Mhm. yaa ngi gis place ak yeneen place ak yeneen place. invité na ngeen weer ba baax bi. yaa ngi dégg ngeen war a organiser programme boo def play foog ngeen fay naka xas xas ngeen fay fay leen. Mm-hmm. waaye foog nga fay naka ñi ñëw organiser si foog nga jox leen foog nga lu bëri nga ci war a def ngaa jël xaalis bu ndaw ndaw bu compagnie boobu la nga ko séeréer doo undoo si yoo xam ne programme. naa ko gërëm naa leen ngeen ngeen enjoy waaw loolu la. suñu gars yi misunderstanding boobu tuuti ma fa te loolu sax dafa du ñëpp dama bëgg artistes yi nga xam ne nag euh, ñoom ñoo nekk di la di leen jox tough time si hmm. female um, association bi hmm. wax ñu ñan la. beneen dafa am si nekk tam ooya xale yi xale yi ñoom yi neen nekkul ñu doon def beneen association waaye bi ñu association beneen association bii moom lañ la topp parce que bii sax bii wéet bi am daal ban association la ñu am si buy waaw euh, kon nag government bi dafa. rek waaye li ma bi tam tontu affaire yi léegi man tuuti dama la fi utal. waaye kii war a tontu lii mooy fay. fay fay moom parce que moom domaine am loolu. Mm-hmm. man président rek laa mm-hmm. waaye léegi ah, affaire trésor trésor moom trésor moom mooy trésor moom moom moo mën loolu. Ah, kon nag yéen a ko dégg am na moom mooy président bi am na fu mu em kon nag dina ko bàyyi ki nga xam ne moo amee wàllum koppar bi di fayam ngom ah, su ko defee rek mu gën a lijjanti loolu. Ah, sama diggante bu tontu ñu nga xam ne dañ fond bi na nii wala mu tontu waaw mu tontu yi fi mu leer. mu leer waaw Sambou ne nga wax leneen loo xam ne lu am am solo la. Uh, yéen artistes yi Gambien yi especially jigéen ñi uh, bari neen lool gaa yaa ngi cry ku mel Nancy Nancy mu fi def lu rafet a rafet uh, waaye léegi depuis bu mu tukkee si wàllum sëy bi gëj nañ koo dégga you know te moo nekkoon koo xam ne at least gisoon neen ne mu ngi mu ngi shine si li nga xam ne mooy wàllum musique ñu gis fi ñoom ses ngoom you know ñu gis fi ñoom diha ñu gis fi ñoom you know uh, ki nga xam ne mooy uh, naka Sofia ak ñeneen ak ñeneen you know waaw ñu bari bari bari ñu si mm-hmm. waaye all of a sudden dafa mel ni ñu bari seen uh, carrière bi dafa dee mm-hmm. parce que jigéen ñi suñ duggee si nit rek duñ leen di gaaw a déggaat te dañuy def lu rafet waaye ñu ngee woy parce que si femme bi Amérique mu ngee def lu nice te xamaa na si tam foog naa mu ngee def lu nice jaamani ngee play ak benn band Ami Dia des mu ngi suy na mu ci musique gars yi bàyyiwuñ ne waay waay Samb nu mu meloon dafa dafa wàññeeku it na tam. du ma mën a wax bàyyi nañ. da nga ne it amuñ moyen oo rek loolu laa nekk waaye foog ma na nekk foog ma ne gars yi bàyyi nañ daal. waaw waaye Samb yow sa bopp sax euh, déggoon nañ la ab jamono boo xam ne euh, foo rimbi rek euh, ñu ne la Samb Suso ñu nii borom baati urus bi waaye am time boo xam ne rek kenn déggatul Samb xanaa Samb dañ doon def musique ku film. ndax dañ doon def musique you know uh, ku dara jamono ji daal loo am daal doy na poos you know yaa ngi relax <laughs> eh, li xewoon rek mooy xam nga yem naa ne ndax cat ndax nii man naa ne am na ndox daf day am man daal bi ma génnee fanninkeeru maa ngi ko fay fanninkeeru <laughs> bi ma ko daal lala lala ne fere fanninkeeru fonnikelu le felendi gambia fonnikelu aliwuli jamuta nga jamuta gambia sitanya to jamuta nga jamuta bi gambia sitanya to banku do te fola kelo koma aliwuli ngake doko wato le sita sita sita sita magene kelo mhm. afona sira bi mbay after temps yi ma génne fas yi suma benn géer fas fas yi comme waaw fu mu nekk mu ngi fi mu ngi jaay waaw suma géer bu baax te di nga naan boobu waaw waaw boobu daal mooy bu ees la waaw boobu moom boobu ees la waaye moo mu dama war comparé ma hmm. génne su ko ma lii woy gi ma war a woy yëpp dan ma lii ak yi ma war woy am nga naa woy géer yi tam ma woy tam yi ma binda hmm. eh, dan ma comparé parce mu mun a something November loolu laa war incha allah. Ah, incha allah november. kon dina neex tam waaye naa ma ngi suñu bi génnee bu beneen la. beneen affaire la beneen affaire la. beneen affaire la eh, sàmm ñu ñëw si sa live. sàmm si sa danga sëy. sëyoon naa waaye léegi sëyu. sëyu loolu ah. kay rek ragal xam naa. dégg nga ah gis ngeen ko naka la kii di si nga xam ne moo nekk musicien du Sénégal bi di. Coumba Gawlo Seck. mu ne gars yi dañu ragal kon Samba Suso. mu ne nag yi dañu amul fit. amuñ wut application ba. application ah. application parce que da xam ne. sëy moom waxtu la. Sambou ah, Suso. yu weesu na yu weesu na nga ne gars yi amuñu fet. amuñu fet dañu ragal. Mm-hmm. léegi looy xaar non. da ngay xaar ko baax ko ragal macha allah ko diine jullite. Mm-hmm. amuloo benn ab waay buy ñëw seet si suñu nijaay suñu nijaay amoon ab nijaay. non man nag su ma koy dundee góom nag. man ko xam ne su ma koy dundee góom. Ah. bilaay dundee góom mooy ah doxuma ci yooyu nag. doxuma ci yooyu waaw guru rek. guru rek mu ne ko guru rek eh, oncle sooy seetaan rek saa moom mel ne bu leen bugut yooyu noonu de gaaw leen gaaw leen ku baax waaw sax ku am nga eh, doom non doom am doom benn doom bu góor eh, bi mbaa moom mu ngi yëngu si musique non non waaye bëgg na musique de waaye football la gën a bëgg na. bëgg na musique bëgg na musique bëgg na football. <laughs> Euh, mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek euh, Gambian Talents ngeen ay seetaan fi nga xam ne nag mooy ñëwal askan bi fépp foo xam ne kenn du leen fa ñëwal jërëjëf day bari baax mu day mun a wax ñu yow APS international ñooñu jàppale saay boo leen bëggee yónnee xaalis saay boo leen bëggee def seen ay ndugal ko seen famille jàkkaarloo leen ak APS international ñu jàppale leen. yërëb bi métti na lool tumuranke bi ak ñi nga xam ne nag dañuy nekk fii di la njuuj njaaj APS international ñu ne déedéet du ñu ko nangu kon nag euh, saay boo leen nekkee di euh, seetaan rek ñu ngi leen a ñaan di leen wax ne rek ngeen euh, ñëw ak APS international ñu jàppale leen soo leen buggee yónnee xaalis ku bëgg a yónnee Samba Suso xaalis rek. jaaral APS international So aku pergi jalan sama. ko maa parce que ñoom gën a des. ñoom lah, a kami ñu ne Smile na parce que dafa bëgg a xaalis ah. kodo kodo kon nag dafa bëgg a kodo kon nag mooy fii ama am solo APS international New York leen ko fallen leen mun a nekk rek dinañ kau ko yóbbul su nekkee sa yaayaa ngi ba base ba tey fi nga Banjul Farafanya fu mu mun biir APS international ñoo la koy defaraal soo leen bëggee sampa seen kër yi bu leen nangoo jaar fenn ñu leen naan njuuj njaaj APS international ñoo mun loolu euh, Samba Suso ah, euh, nga ne am nga doom waaw am naa doom am naa doom masha allah benn doom nu mu tudda Jibril Njaay Samba ku bëggoon a indi application ko takka Samba fu muy jaar muy jaar waaye fan la ñu si moom xam nañu kat. ah balaa ngaa Samba yow lay seet poos bu diis. non non non ah, borom poos bu diis. xam a du ma xam doo doo ñëw rek ma ma dugg ma xam fan tuuti rek xam yaay kan tuuti. nekkul ne damaa xam ne bi di gis naa ko waaye xam tam foog ñu ma xam ne kii mooy kii nii mooy waaye nga loolu mooy xam mooy nekk secret admirer. secret naka naka eh, blind date. <laughs> yow doo blind date. blind date óol. gis ngeen boobu óoloo mm. sax mu nekk artiste life bi eh? artiste life mu ngi neex macha allah ñu ngi ko enjoy ñu ngi enjoy comme comme ni ma la ko xam nga dog bépp day am si àddina mm. man because man kañ kañ laa stop kañ la kañ la man foog naa bi kañ laa gis play play programme am na place mooy programme eh? kon koo xam ne nii daal dama dama dem suy dem non non non maa ngi dem suy dem maa ngi dem sama programme si ma pare simple nunguute kan man kan lay nungu ma nungu kenn maa ngi feeñ ni ni jant nungu yàlla tere yaa ngi gis comme par exemple comme li ma la wax rek xam nga àddina da nga dem ba am ñu ay nattaay boo xam ne dee def na xam nga naka ko waxee da ngay tekkat bi rek waaw break du def te am waaye nekkul ne comme parce que man maa ngi sant yàlla alhamdulilahi rabil alamin maa ngi sant yàlla bu bëri waaw maa ngi sant yàlla parce que nit ki moom luy luy lii buñ la gis ne dina ree rek. Mm-hmm. te buñ la buñ la gis naan ay ko. Mm-hmm. xam nga yooyu yow traité ma maintain sa bopp maa ngi maintain suma bopp te macha allah damaa def même baax ba tey. Mm-hmm. sa sanse baax na xoolal leen ma saabu fu mu génnee. yaa ngi solal sa bopp ndax. léegi nii waaye ay desal moom lay solal. ay desal moom lay solal. kon dina ko madame Alaaji Konte. moo laay sant sant moo laay sant sant da ngay fay ndax daf laay jël rek. ma ko defee dara du ma ko jox. dégg naa ne yàlla na ma defar na ma sansal macha allah bu dul ndox su ma lante moo dégg naa ne yàlla man tam fu taw tam man tam naa moom moo ko desola. Euh, Samba Suso su ñëwee si artiste Gambia nekk nga kenn koo xam ne foo génn rek ñëpp kontaan. sambu soidang masa dinga ñun yundi nella dé be tas yoni masa bi eh, you know saibu sambu susu giri rek nga kontan dingi sul ba you know eh, té sam dani né dingi wa artiste dañu modde waye sa tuddu yi genn ci yoyu eh, da nga dégg yoyu nonu nga ne harama lu o li ci deret bala nek war war fa war na nek sax parce que ki bo demé ba taxaw nga man artiste la da nga jël musique def ko sa carrière oh non non boy genn da nga wara xam nga génné te te dara war laa béykat macha allah yow da war di defaru because artiste dafa aar dafa ànd ak solo waaw aar dafa ànd ak solo so yow da war di foo foo toll daal war nga xam ne óor mun naa tasee tambaru chou mun naa tasee tasee GRTS mun naa tasee QTV mun naa nga mun naa tasee station boo xam mu ngi def programme bi fi ma bett ba jël ma moo tax ñu suñu génn booy dem marché sax ma ma sol daal di gudd ak sant maa tëggee waaw waaw. Samb yow mën nga toog. a kañ. ah nen xam nen xam ne Samb gas laa am. ah waaw mën naa toog man géwél laa di. te doomi géwél léegi eh, doomi géwél doomi géwél mënul toog ah. bari te génn nag artiste yi nga gis nii. Hmm. xam naa si dara ñu bari ma toogal. Hmm. artiste yi. ko si mas loxo. ses ses mën naa toogal macha naka sa relationship ak yeneen artistes yi. mu ngi cool ñëpp su ma lañ su ma xarit lañ. waaye man dama day jàppee comme noonu ma jàppee de waaw parce que su fekkee yow xam nga ne kii moom mag boo ma jiitu si aar bi nga ñëw ngay maa jaay bii xool laa xool rek noonu. dangay xool ne ay don't care ne dangay xool ne danga koo jël wanal yoon. dama ma ah koy wan koy wan yoon mooy ki nga xam ne daf la respecté. sànq maa nekkuloo di defante. defante man nag dama bari ay de. ah daay ay daa man boo defante man ma defante yow. bu ma dee am ma nag dama dee bëgguma problème dafa bëgguma sax ma am kenn problème waaye bëgguma tam bëgguma ko tam bu ma dépassé yaa ngi dégg waaw man nag soo ma joxul fulla man ma ko soo ma joxul fayda dama ma ko fayda waaw ndax fulla fayda borom jur bu rëy ndeyal bàyyi tëdd fulla fayda borom. Samb fans yaa nga seetaan ñi bëggee bari na lool rawatina nag ñi nga xam ne ñoo nekk si Amérique bi nekk si Europe bi wéyalal sa ay fans. فهمنا كانت صورة كويبي اه وين الفضل دي سنة دمورنا دي كورة ولا بلا في متاجة اه كسي نوع مي فانسة زي موي فانسة ينا قديم كورة فاي emotional سلي سي وحق ينك سي لناي بوغا وي دي خلات بوغا جيني فانسة فنيخ كم دي لا كوي ورك artist da ngay bëgg ñi nga xam ne ñoo la bëgg a. daa mbaa fii doog a fi ma defé ne ah ah lii ah, la. déedéet boobu du bokk ah. Ousmane dina ko edit. dëgg la waaw. How hard now will we guy why? It's part you you should remove it, okay? Yeah. You said come on now, is Nyata lah. दुना दुना दुना मेरे वही दुना दुना दुना दुना मेरे वही दुनिया मा येरे मोलू दुनिया मोलू ले येरे मता दुनिया मा येरे मा दुनिया मोलू ले येरे मता अलालती लो बान्या मले दुनिया मोलू ले येरे मता alala karoba ñamale duniya molula yenamata tiloka mo damen kunu akabo yele bi tiloka moy damen kunu akabo yele bi ka fomolu ye alinga muru koma suma alinga muru koma mu ngi mel rek comme aada yi cosaan bi ñu ko fàtte daal bu mu munti demee dañ xam ne rek ñun ñooy yaay xam nga kan waaw ku wàcc sa ànd ànd moo dem fekk borom téye euh, Sambou euh, kontaan nañ lool lool lool euh, depuis suba ñu la téye fii bëgg a waxtaan ak yow Sambou nga nekk koo xam ne ku naw la man dama koy wax saa su ne rek Sambou bu ñu nekkee xale dañ lay déglu rawatina nag sa mbindaan du jaam nekk xam ne ba tey ba ëllëg ñu ne artiste su wéyee te ettewut mu teg wéy bi sa wéy nekk loo xam ne dafa yee nit ñu la lool Euh, sopp la lool ba nga xam ne euh, fu ñu toog rek ñun Gambian Talents dañu laay célébrer saa bu euh, la ñu gisee yaa ngi dox si tànk yoo xam ne pour jëmale sa liggéey si kanam dafa nekk yaa ngi busy lool pour sa album launching bi ñu bàyyi na rek nga wax ñu tuuti si album launching bi nga xam ne moom nga war a def ak ay preparations. waaw fi nekk maa ngi record maa ngi record parce que am na yu record kay sax tëj am na yoo xam ne tam dama leen dama dugal musique waaw léegi nag loolu su paree ma ñëw waxoon ni ma génnee album allah rabi comme gars yi ma gëj a dégg wax yi na. anga suñ la gëj a dégg wax yi bari na. wax yi bari na wax yi bari na. et pare nit ngi wax nit ñi daal lu leen uur. fekk nga àddina ngay wëllu uur dafa baax waaye bul toog yow loo gis nii nga ne na foofu naxare na ma de xam na maa naxare. nekk suy de ñu nëbb. loolu laa nëbb dafa so loolu moom tamit dina nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant waaye loolu la fii àddina la dafa nga leen ko wane daal cat ndax nii non non non aywa yal nañu cat siif lu waay. yow tam yal naa cat siif lu waay. dafa am time boo xam ne si life te fa nga am break. loolu laa ko Gambie ne xam nekkul ne dama bàyyi suma ba waxoo dama bàyyi am na ñoo dafa bàyyi wuy bàyyi wuy lu ma ko daay bàyyi wuy su ma bàyyi noppee rafet bi. da ngaa ne demande da ngaa ne gis géej naa ko gis. waaye nekkul di woy kay parce que man léegi surtout ñun suñu mbokk ak ñoom suñu géwél yi duñu amee ñoom ñun ñoo ko di play. Hmm. Hmm, surtout géwél sos ak am ah dama def def programme si xew yi takka yi nii waa ngeen pay yàq ko def ñun géwél lañ. Hmm. dama def play yooyu soo nekkulee dafa ñu dangaa ne. gis naa ko bi si TV bi wala gis naa ko dégg gara diina. loolu ngaa wax. gis naa dégg mu ngi play gara diina. xanaa gara diina rek ne ko programme nag am na programme ñu def side bi ne ko da dippel si gën a diina Gambie yi rek jëm foo jëm ne père su sa final word waaw suma final word loo suma fan si ne gis nañ maa déggal waaye maa ngi full force te inshallah nga xam ne ngeen di sa fen xam nga suma génne fu nooy nepp laay génne te li tam na wuyu wuyu wi la dana nekk woy yoo xam woy yu yeete eete la woy yoo xam ne naa ci woy sumay kilifa waaw ndax man suma papa Géera mi bëgg naa leen a sargal ci album bi waaw bëgg naa leen a sargal bu baax a baax a baax ndax ñoom suma papa mënu ko wax def mënut a woy kooraal def man ma neex kooku ñooñu man du ma leen mën a fàtte ñooñu foog ma delloo leen jukkal waaw ñooñu foog ma delloo leen comme na ko si njëlbeen alhaji Bass Ndiol kooku macha allah mu ñaanal bu baax yal na fi yàgg dan wér yàlla may ko fan bu ndax apa yaram yaa ko si kanam bi ko ko ñaanal bu baax bu so ma koy ñaanal jabaram yi doom yi ma sista si foofu jawar kumba ñi mu ñaanal ñaanal ak waa daama aku pakai eh, eh, soo saya famille leen alhaji Mari tam ñu baax nañ jàpp nañ suñu fa toog o dëgg yàlla jàpp nañ ko wala lépp lu war diggante gi wér ngir def nañ ko. Eh, kon nag li leen neex eh, Samba Suisse mu ne kuy fàtte di ma baaxoo eh, di jaajëfal ñi nga xam ne nag ñoo jàppale woon famille bi tey it bañ a bàyyi seen ay doom nag di gën a kon noonu la nañu jàppante rek Gambie dem si kanam di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan fu mu nekk nii Tambambalu bi nag jeex na daanaka waaye rek comme ni ñu ko waxee rek saay bu ñu demee si kër yi ay artistes dañ am loo xam ne dañ koo wax suñu Tambambalu box bi tey nag Tambambalu baat laa leen amal bu black xam ngeen rek nu ma ko waxee rek euh, ñu ne suñu wikkit bi da ngay indi lu rëy te xam ngeen rek Samba nag moom dafay def ak ñun yu baax. Samba Suso lii suñu segment la moo dina defante segment bi euh, loo si am rek nga def ko si. waaw baax na foog ma dugg ci biir ma ñëw gis ngeen ah déedéet Samb xam naa da ngay bëgg a gars yi ñu buñ gis nu nu mooy defee gis nga ko rek soo ñëwee kër Samb moom ñii lay def ak ñun. waaw baax na nag xaar bu ngeen pare rek ñu ñu defi. waaw Samb Suso ba léegi eh, Promotion ma leen a jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jërëjëf ah, saa su ne loolu la ñuy déglu di Ousmane eh, Cissé ak ki nga xam moy Lamine Cissé man nak may ànd ak ay Cissé na rek def ak man ci ay lekk yu bëree bëri eh, ba léegi rek sàmm ñu bay la nga dugga nga ñëwaat su ko defé ñi jekkali waxtaan la nga wuyal gaay malu ak li nga moy defante segment bi sàmm noo defanteeg man. ah man fa la la mo nga fa tànn. Mhm. waaw man la nga fi ko rek. lii nag man nekk naar ini ni maga maga maga. waxee moo tax tey ma indi baag Samb suuf soo su ma maamu jigéen jaañ la sant. mu jeex tax waaw kon yow jaañ naar la. gaañ jaañ naar la laagati naar la. ni mu ko waxee dafa tàngaay. ma defi fi tàngaay gis ngeen. ni la def ak man kontaan lu ma gis ngeen ko. bu ko wane de ah. gars yi xam naa ne léegi nii nag ñu ne ma may ma ko suma maam Amina Mbaye Sarr xam naa yaa ngi ne ma yónnee ma ko yónnee ma ko <laughs> yow waa Amérique doo am lii. kan ak kan ngay nuyu. xam nga su ma limee juum parce que dama bari xarit bari fans bari ma bëgg kon képp ko xam ne daal boo na sanso yaa ngi ko bëggee rek sanko gana mais mais mooy boy kontono mais moo be jayila mais moo boy tentula fen ma katama malu du dubé mo mé encore sanko suso kantelam ngam lo dia bi na pel da ko ko ngi konto albi daw da ko no ka dunya kono gambe ne ka kantal kadu wakairo na al makairo sabatila al la ma sha Allah Satu, fana ya barkay ni la mo jere ngeen jef ci sanga na man mo ara ba taawul ju yo na dela waaw yow sàmm si sa biir. waaw si yaa moom bi. te ni moom la fi ci olof. ah jugal jugal ah sàmm jugal waaye jugal. sàmm jugal jugal jugal jugal ah. gis ngeen sam sam. mais pas aussi fekk mu yónni ma xaalis. yónnee doon na tëgg tëgg tëgg tëgg tëgg tëgg tëgg. sàmm tuumal gay xool sa sam sam tuumal tuumal tuumal gay xool. waaw mut na mut na yow sa piis dafa mut. fu mu ràmba ñoo ràmba day mut day mut waneen ñu daala yi ñu xool daala yaa ngi nii hmm. gis nga ko góor la ko tojee de ah sama dafay fii laa def yëpp si Tambambalu ñun ñoo leen ay joomal Gambian Talents ñoo leen ay joomal di leen jaajëfal bu baax a baax a ba a baax di leen wax ne rek ñi leen koy defee di leen dem seeti ci ay artistes ay musiciens ay politiciens fépp foo xam ne suñu ay ndaanaan ñu fa rek di leen stars la ñëw la naa indil kon na Gambian Talents si kaw si kanam ca kaw sa kanam ala jube ala jube Gambian Talents na la baara ñuma la Gambian Talents na tale wolbe la fatu samba na la moolu Paus jufna la mulu <laughs> <laughs> la minin usman be kamerala malu kontong Aling Bara sama nama Messi voice menit mayobu Musoli barada gambe musoli barada alunim bara bara bara bara alunim bara ñu ne jigéen day am xorom mbaa nga bokkoon doo la gis mi naan du jaam mi naan yow wéyoon naa ko ah yow xam nga ne wuy boobu lañ daan gis suñu télé bi. GRTS bu mooy Star S. waaw léegi a naan waaw waaw mi naan du jaam. du jaam du jaam du jaam <laughs> du nga du jaam du jaam bu añ bi na jee ñu ne mi naan bi laal bu ndekki bi na jee ñu ne mi naan bi laal bu reer guddee ñu ne mi naan bi laal ndeysaan Fedandole. Minando yamo. Danza dolela. Mane minando yam. Mindan. Danza dolela. Yati no vocale. yati nyuma no vocale. yati no membe jali solani mantoro. Ambo punya lu barikada. Alaji basiru jawara ambe punya barikada bunya ke bari ma bunya de lolong iwala la baba na mami antun karana nan kama do jabi sangana me maye balo sangana me maye balo me mangana kurango ni me masamananga tunkarle manda kuruni kamiyan kunui papa ala mela nimbota no fanama ala gesoro saya nyati sa saka kuni mu na santi ba salimula nan kama duwa jabi ne a jatindi barala nan kama duwa jaabi nan doro nando rofa titi faila, ye fatu faila bi bida ma ti duna bangade sogomane bankuma nimbota noma alagi mari tambedu tambedu kuje ya ya ya ya ya ya ya mola kale kanda ne man juguye saya mutonyati saka kuni mufana gansanti na tira jajuke na abinya ike maryamu asiske bima dunia da bida mate duna banna ariya kan faye jali buli sora wabali rasa mujalina me bunya bari kada bunya ke bari ma bunya de yorolong ah ah aji sai bo tunkara tunkara manda kami yang kunun mereka hmm, nuhunde barikadari saya te da fentula saya mutonyati saka hakuni mufoni ya gansanti bila nyonyo foma uh, welen hmm, ne kada buga dore suma gir papai nah, lolo ti li bitam nandoro ko tam amna ci woy nandoro ko ko mi da ko la amna ci woy incha allah ndax li tax bi ma nekkee xale dafa nekk suma géer balaa ma doon Amérique waaw su moom tam am na moo ko pare incha allah daabu sanga mu ngi Amérique nag am produit ka show bi mbay kontoon na baake dina juróom benn rek incha allah rabbi waaw muy ak ak ñeneen ñeneen ñeneen su ma waree lii nag. waaye nag. ñett paa yi moom ñoom foog ma sargal leen. sargal leen ba ma sargal leen. am na si solo bu baax a baax a baax ñu célébrer ñi nga xam ne nag ñooy suñu ay mag euh, te nekk yéeg si dëkk bi euh, kon nag Gambia jërë ngeen jëf bu baax a baax a baax di leen ne nag makeup bi nga xam ne yéen a ko gis ne euh, ki nga xam ne nag mooy Yabinta Maane Diop nekk si Latrikunda Jaman moo si jaar ki nga xam ne nag jaaru bi nga xam ne yéen a koo gis kooku di F kooka. waaw est ce que ko sinate moo si jaar di ko jaajëfal bu baax a baax sa facebook friend la kooku di chéri fuule sinate dina eh. jaajëfal bu baax a baax a baax grandement Amina Mbaye yaa jaar si lii eh, kontaan lool bég lool kon eh, nag mbokk yi di leen jaajëfal di leen ne yeneen tambambaloo ngir ñëw maa ko wax jinax day bari wax muus day mën a wax ñeew bye bye yeye yeye Gambian talent nata Gambian Talent Promotion alu yàlla muy yeye Gambia Talent naata Gambia musonin dini mulum kalu ya jube fadu samba na la mulum a us na la mulu usmanin lambe kamera la o alay wolu la muy ah mam sang suso maa ngi suma ay fans ak sumay am bi jàmm ak képp ko xam maa bëggee daal day seetaan Tamba Mballo show bii di Gambian Talent Gambian Talent show promotion ah. Mhm. nuyu naa leen bu baax beneen anam boobu. <laughs> ma lay xajal ma leen la bu ma nekkee xale ba léegi moom moo ma amee bu ma amee ba léegi mar na maruma xiifuma raflawuma lu ma soxla lu ma soxla suba ba ngoon daf ma ko defaral. waaw maa ngi ko ñaanal di ko yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér bi yaram moom dafa oyof trop dafa understand rek nga mën a dem ak moom mm-hmm. gisul waaw gisul ku baax la ku baax la waaw all right so yan ñaan nga amalal sama suuso waaw maa ngi koo ñaanal yal na ko yàlla may jëkkër bu baax yal na ko yàlla bàyyi suñ kanam ba mu lekk suñ njëriñ ba mu gis suñ set setaat waaw loolu laa nekk di ko ñaanal te yal na ko yàlla may te musique am bi lu mu ne si musique bu mu nekk di def nii yal na ko yàlla may bu dem ci kanam su rafet si laa doon fàtte. amiin yaa rabbi woyam yi yëpp ban nga gën a bëgg ah man jarab yi laa gën a bëgg nag. jali naka. jarab yi. jarab yi ah, ah laal ko bu nekkee ne yow mun nga ah ah ah. ah, ah <laughs> non boobu moom mënuma ko daal boobu moo gën a neex si woy yi yëpp. moo la gën a neex. waaw jarab waaye nga dégg artiste si këram ah. donc <laughs> jarab yi moom a gën a neex si woy yi yëpp. da ngay toog rek wéyal leen comme ni ñu doon toog waaw dafa toog wéyal ñu aar fóon na ñun waaw luñ bëgg a su wengoon daf siy dox suñ ko waxee lii lañ bëgg a loolu lañ bëgg waaw. wallaay. Alaajube Alaajube Gambian Talents natale Alaajube wol be baarale la baara